siyaare bu baax ci des bu tedd bi di bésu aljuma di leen ndokkeel li ngeen mel na ni li ngeen yitte woo xam nag muy taarixu euh, barab bu tedd bi ñu toog di yàlla wa annal masaajida lillaahi falaa tad'uu ma'a llaahi muy néegu yàlla bi li nga xam ne mooy historique bi bu ñu ko doon tënk dañu lay wax ni euh, xalifa bu borom gaawaan ak doomi sëriñ Touba ñoo ko fonde muy Serigne Mouhamadul Mourtada ak Serigne Sam Mbakke Serigne Mor Jaara borom Sam nekkoon ñett ñetteelu wala ñeenteelu xalifa borom gaawaan ñoo ko teg ñoo teg xeer wi Serigne Sam taxawu ko ba mu yegg fa mu waroon a yegg yàlla dogal mu jóge fi wuy ji boromam kon barab bi ñu nekk barab bu am taarix la mu ngi nekk ci péncum borom gaawaan di dëkk boo xam ni suñ gaawaan ko sañcoon vers 1905 ci ndigalul Serigne Touba ginnaaw bi mu jógee ci exilam bu mag boobu. fekk ko fi fii ci kër gi ñu nekk xam naa dinañ ci yegg ci taarixam muy kër boroom gaawaan mu am fi néeg boo xamante ni suñ borom defoon na sëñ Tuubaa ñëw ak tànkam ba fii dugg ci néeg boobu julli fa ñaari rakka defal fa sëñ gaawaan lam fa def ndax bi mu ñëwee dañu wax ni sëñ bi dañu ko sëñ gaawaan dani ko xajoo fenn lu yàgg ndax ñëpp la soxla te yow foo am seen saa ak foo am téeméer téeméer at ñooyam def fii li nga fiy def di dem mu def fi barke ba tax lii am tey Euh, penc mii mu nekk nag di kër gi di fii ci penc mi di penc di jumaa ji nga xam ne historique bi dëgg-dëgg sax bu ñu demee gi delloo ci ginnaaw wax nañ ni borom gaawaan moo fi moo ko moo ko rëddoon defoon ko jàkkaam euh, yàlla dogal nag bi fi xalifaam boobu nekkee di sëriñ saam taxawu ko teg xeer wi moo ko sëriñ Mouhamadul Mourtada tegal ko xeer wi muy 1997 wala 1996 yàlla dogal nag bi mu fi jógee noonu ma ko waxee wuy ji boromam ba muy dem waxoon wax ju doy war ndax bi sëriñ Murtada tegee xayru ba noppi nee na bi mu génnee dafa ne sëriñ bi de ci ak mbaaxam ak bëggam lu baax ak yéene ma aw yiw nee na ma ñaanal na ma ni ma yàlla nga ko yeggale waaye moom sax xam na ni du ko yeggale ma it xam naa ni duma ko yeggale waaye ki koy war a yeggale mi ngi ñëw ki koy war a yeggale nag mooy kan jàmbaar bi suñu jàmbaar jooju di sëriñ ma amul Mbacke ibnu sëriñ Ibrahima Mbacke Ndar moom maam Cheikh nga xam ni way juróom Serigne Ibra Ndar nekkoon ñetteelu xalif maam Cheikh Anta mooy yeesalaatoon kër borom gaawan gii tey yàlla dogal moom it mu dem ba jëmmi jamono kër gi yee laajaat yeesal mu laajaat ndigal ci Serigne moo Faty mi nga xam ni moo fi nekk di xalifa borom gaawaan yàlla na fi yàgg te wér mu jox ko ci ndigal jox ko ci ñaan def ci léppam zahir ak baatin ba mu yeggale kër gi mu ne ko jumaa yi borom gaawaan ji doomi Sëñ Tuubaa ak sëriñ gaawaan di doomi Serigne gaawaan fonde na nga ko yeggale Mbàkke ba mu mel ni mu war mel Serigne bi nag amatul fenn soxla ñun ñëpp xam nañ ni yitte yi mu nekkoon moo doon yitte jumaa ji ba yàlla defal ko naalam yi yegg tey ñu war ko tey jii le 13 mars 2020 kon ñi ngi koy ñaanal di ko dolli ay ñaan yal na yàlla dolli ay ngërëmam ca barsàq muminin ga mu nekk moom moo Mouhamadul Mamoun moom maama mi baaxee ak baay mi baaxe ak mboolem jullit yëpp ak ña ko fay fekk kon daal ci gàttal jumaa ji jumaa ju am taarix la euh, noonu ma ko waxee dëkku borom gaawan la dëkk bi sëñ gaawan sanc ko ci ndigalul sëñ tubaa sëñ tubaa fekk ko fi sëñ gaawan nekk fi lu ëpp fanweeri at njabootam gu bari gane fi àdduna ay góor ak jigéen muy dëkk bu mu bëggoon dëkk bu ñu tax boo boroom borom gaawaan xel yëpp dem ci gaawaan xalifaam yu baax yi ku fi jaar def fi la nga fi war a def waaye cër bu nekk ak ka ko yàlla cërale yàlla dogal yeggu jumaa gi waroon a nekk ci loxol Serigne Mouhamadoul Mamoune mu yeggale ko ci anam bu rafet ànd ko bokk yi ak taalib yi yëpp yàlla nag dogal bés bii ñu nekk tey di le 13 mars jotoon na ndigal ci Serigne Mouhamadul Mountakha mu waroon koo ubbi yàlla def li mu def e, doomam ji nag wuutu ko di Serigne Sidi ñu koy ñaanal yàlla dimbali ko te kattanal ko ba li nga xam ni la Serigne Fallou waxoon ni sama mag ju baax Cheikh Moustapha lépp lu mat a sos sos na ko waaye lu mat a sos rek sof naa ja yàlla ko yàlla dimbali moom it ba li baayam yu baax yi sosoon maama yu baax yi sosoon ko moom it mu sof ca kem kàttanam ci anam ba gën a rafet gën a baax gën a sell gën a te lépp ànd ak gudd fan ak wér ak ndimbalul yàlla kàttanam ak baaxub sëñ Tuubaa loolu lañuy ñaan di ñaanal ñëpp ne ku fi ñëw ak tànk yi nga ñëwee ak yi ngay dellu lépp yàlla defal la ko tànk yiw ci barkeb sëñ Tuubaa ñu teewe ko déwén yu baree bari kon dal ci gàttal bu fekkee ni fàttewuma dara loolu mooy taarix bi nga xam ni mooy taarixu jumaa ju tedd ji ñu nekk tey jii di ko ubbi di eh, jumaa yi maam Seex fii ci gaawaan